man maay madame Niane maîtresse sage-femme au centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni trésorière de l'amicale de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ànd ak ñii ma àndal les membres du bureau et la présidente ki est là aussi donc ñun am ñu ci 8 mars bi ñun euh, jigéenu hôpital bi ñoo ñëw di fetewaat 8 mars di ko fete ànd ak amicale bi di ñaan yàlla di ko yàgg fete di nuyu di sant Serigne Touba di nuyu Cheikh Cheikh Mountakha di di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di sant membre administration bi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ak ñëpp ñu nekk si biir invité yi nga xam ne ñoo nekk si waa Kër Serigne Fallou yeeg ñëpp ñëw bés bi nag tey dañ ko jagleel euh, soxna Awa Bousso di wut ci moom reyukaay moo tax ñu jagleel ko ko ndax xam nañu comme ni ko El Hadj Ndiaye waxee léegi que ni soxna Awa so non seulement dafa amoon fu mu taxawee ko Serigne Touba mais aussi nee na képp ku daan feebar ci néegu Serigne Touba bi moom lañ ko daan yóbbu mu laaxal ko bisaabal ko jaxaseel mélangeel ko ay garab pour mu mën a am tan kon tey suñ ko tuddee suñu bis bi nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni tuddee ko bis bi kon wàcc ñu yoon bi royukaay la ñuy wut ci moom di ko jaajëfal di sant sëñ bi bi nga xam ne moo ñu fi ba ñu agsi fii tey di ko sargaal. waa jigéenu hôpital Matlaboul Fawzeyni dafa nekk hôpital boo xam ne jigéen ñi ñoo fi ëpp majeure partie bi ay jigéen lañu. te hôpital bu avancé ba tol fii jigéen ñi ñoo takk seen sër di liggéey ba ak ba hôpital bi ak si fii mu ak si tey kon tey bu ñu célébré 8 mars te jigéenu hôpital génn ñu célébré 8 mars loolu kon dañuy yaakaar ni teguwul ci yoon revendication yi ñu am yëpp macha allah ñu ngi ciy waxtaan ak suñu directeur te mi ngi siy jàppale bu baax mu ngi jàppale amical bi ubbil ko ay loxoom tàllal ñu loxo saa yi ñu ko soxlaa mu recevoir ñu di ñu déglu di ñu jox loo xam ne di ñu jox ay idée di def si loxoom poche am di génnee di ñu jox pour amical bi jëm kanam bu dee syndicat yi même chose dégg ngeen li ñu wax ci biir que ni dañu tudd syndicat rek ñu ñaawal leen waaye waxtaan rek lañu fi nekkee pour àq ak yelleefu travailleurs yi te mi ngi ciy dox bu baax am amuñu dara luñ fi mébét macha allah ñu ngi ko si sant monsieur le directeur di ko ci gërëm bon jafe-jafe yi bëriwul noonu torop bëriwul noonu torop daanaka fi ñu toll nii macha allah ñu ngi liggéey bu ñu amee ay jafe-jafe peut-être ay rupture nationale la ñuy wax lu toll naka ay gants ak masque yooyu temps yi xam nañu Sénégal gi yëpp ko manqué loolu daal suñu jafe-jafe ay jumtukaay yu ñuy liggéeyee mais sinon si biir bi amuñu si benn jafe-jafe jafe-jafe yu bëriwul. Mhm. dañuy kontaan suñu biir xool ndax dañu nekk ay jigéen nekk ci hôpital bi liggéey takk suñu ndigg togguñu suñu kër yi di liggéey di xëyee ko wàcc nekk ci garde yi wàcc suñu kër yi wàcc suñu njaboot ñëw di liggéey liggéey boo xam ne nag dafa noobul mooy di dimbali ñi nga xam ne dañoo feebar dimbali ñi nga xam ne dañoo jaaxle daw ñëw ci ñun ñuy diñ ciy def nag lu ñu mën suñu kéem kàttan ngir dëkk bi nu mu toll ak sëñ bi nga xam ne moo ko sanc di ko liggéeyee rek bañ a taay kon bu 8 si jotee ñu nekk noonu di sonn si dëkk bi di liggéey te hôpital bi ëpp jigéen ñi ëpp fi yoon la ñu manifesté wu wane ni kontaan nañ ci li ñu doon ay jigéen nekk ci hôpital bi liggéey waaye kontaan nañu it si li ñu nekk taalibe sëñ Touba ñëw ci dëkkam bi di jàpp ci liggéey bi